bismillahi rahmani rahim wa billahi tawfiq wa alayhi tawakkatu ilayhi unib allahuma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa man wallah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu israil ma ngay wéy di def ñaaw téefam yi mu baaxoo muy boole mbooloo faagaagal leen démb li xew foofu ci quartier daraj ci école bi ñu tuddee madrasatu taabiina rawatina ki ci masjidu taabiina ci ba ñuy julli kenn mësu koo gis ñaaw téef la boo xamante ni àgg na foo xamante ni kenn xamatul noo koy tuddee dootoo xam sax daga naan ndax lii moom ay nit ko def wala njaay àll wala boog ay rab ko def ndax yaakaar naa ne bu doon njaay àll yi sax danañ def jëf yu ñaaw yi téeméeri bakken Israël tëral na ko démb ci foofee nga xamante ni moom mooy quartier Daraj mu nekk ñaawteef yoo xamante ni àdduna bi wërngal képp ànd nañu ñaawlu ko waaye ñan ñoo ko ñaawlu mooy askan waaye waaye gisuñu benn nguur gu taxaw nag ñaawlu ko li xew démb xamaas tënk na ko ci aw këyit bin ginnaaw ba mu jàkkaloo taskatu xibaar yi nee na li ñuy tuddee benn majzara maanaam benn rayuk mbooloo bu am ci masjidu taabina ci quartier bi rek loolu dafa wëyal lii ñuy tuddee génocide bi nga xam ne moom la Israël di def saa su nekk di ki ànd ak nga xam ne moom mooy américain yi ci kaw loolu mu ne nag rey bi ñu rey nii foofee ki école bi ñuy tuddee madrasatu taali yi nag ci quartier rek ci digg dëkk Gaza ñaaw tiiflu bu tiitlu boo xam ne ma ngay gën a ma ngay gën a ay jafe ak ay musiba boole ko nag ci càllal ñaaw tiif yi nga xam ne Israël daana ko def nga xam ne kenn mës ko ci li xew démb ak tey maanaam ci histoire ñaawte fi nga xam ne Israël tàmm na ko def foofee ci Gaza ci kaw loolu mu ne rey ñu ñaaw yooyu nga xam ne Israël def na ko démb te nga xam ne mu ko jubale ci école boo xam ne dafa fees dell ak ay waa daw làkku ci bi ñu julli fajar mu daal def ci àq ñoo xamante ay siwil lañu nga xam ne dëgg-dëgg dañoo beddeeku ba mu tax lu mat téeméeri bakken ak fukk daa téeméeri bakken daal ci ak fukk ñoo xam ne gaañu nañu loolu nekk ñaaw tiif boo xamante ni ak seeni bokk la ñi nga xam ne ay néew yu tasaaroo yoo xamante ni daanaka euh, sonn nañu lool te loolu dara waralu ko lu loolu nekk ndigal lu jóge ci gouvernement euh, yahuut yi ñuy wëy di rey faagaagal mbooloo ci askanu Palestine mu nekk loo xam ne lu ñuy baamtu la waaye lu ñuy natt la it ba nga xam dañ koy wutal yoon wu ñu koy defee di ko def ci dërëb yi nga xam ne fa la ñuy daw di làqu ak béréb yoo xam ne dëkk na fa mu nekk ñaaw te ñaaw ñaaw yoo xam ne saa nekk ma ngay faral di am loolu nag di am ci école di am ci hôpitaux yi di am ci mu mi di am fépp kon jàppale na daal démb li xew ci bi nga xam ne ñu ngi julli suba foofee ci masjidu taadi ne ci quartier Daraj ci l'école bu ñu doon tuddee madrasu euh, madrasatu taadi na foofee ci wetu Gaza ñaawteef gënu ko raw téeméeri bakkan rot nañu ak ay gaañu gaañu yu méttee méttee méttee kii wax ci turu mouvement jihadul islami Mouhamed Alhaaji Moussa doon na wax benn canal mu ne nati ñaaw li mu mënul moom mooy amal ngañaay loo xam ne yéene woon na ko ndax li tax moom mooy dafa jàmmaloo bañkat yu am am doole mënalu leen dara def na lu nekk moo tax léegi mu wéeru ci ay ñaawteef yoo xamante ni kenn musu ko teg bët bu bu bu jubluwul ci njiit yi ma ngay jéem a seet ñaawteef yoo xam ne ku ko dégg mbaa nga gis ko da ngay ak ngaay àllam lu lépp li ko waral moom mooy jéem na lu ne te man mënta daaneel ñi nga xamante ni dëgg-dëgg ñoom ñoo waa Palestine muy rawatina ñi nga xam mooy waa Hamas ak islami yor kàddu waa xarakatu jihaadul islami moo doon wax kàddu yooyu di ko jëmale ci ki nga xam ne mooy nata Abu Ubaydata démb ma ngay fësal na kataibul qassam jaayante nañu ak ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, Yahya Sanwar mi fal yees waaye jàkk jooju nekk ci bara euh, ñu tuddee ko saxaab baaxu bara ubun azib vidéo ba fa xewoon ci la vingt six juillet te mooy kàmb gañ fa kàmbuloon yahut yi rey leen rey yu métti démb lañ saar vidéo bi xam naa loolu bokk na ci leen gën a naqari beneen bi mooy da gis kilifa gi nga xam ne moo jiite toog gi nekk ci croyage Chamona ci càmmoñu Palestine maanaam ci mairie ba muy daw ne waqit ànd ak ay nitam ne leen ngeen daw ndax xalaat nañu balaa yàgg lu toll ci missile yu limu limu danañ fi wàcc ci loolu nag nekk ay mbir yoo xam yu doy doy waar la yu tàmbali. démb waa Israël leeral nañu ak mboolem ñi nekkoon foofu rey nañu fukki soldaar ak ñaar yu ay israélien ci xeex bi démb ci vingt quatre heures niki noonu lu toll ci ñaar téeméer fukk ak ñetti cay officier ak ay militaire dañuñu di uti ñu leen faj niki noonu am na ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñu gaañu gaañu yu metti rey nañu juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay officier ak ay soldats jam nañu lu tollook juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñu am ay gaañu gaañu yu métti depuis ci xare beeg léegi ëpp na loolu wax nañ ne lu tolloog ñeenti junni ak ñaar téeméer ñeent fukkee ñeent ak ay soldat de xeex bi tàmbaleeg ñoom eh, waa Palestine jam nañu leen waaye mu tolloog ñaari junni ak téeméer juróom-ñeent fukk nee nañu ñooñu ñu ngi leen jamee ci biñuy ñuy xeex xeexu suuf Israël am lottaange lool ci li nga xam ne moom mooy budget réew ma daanaka jafe-jafe yu métti yu jige ci yu yu sori ci ñeent fukki milliards de dollars ci fukki weer ak ñaar yi nga xam ne doon na ko xeex mu nekk ay coono yu bare bari yoo xam ne am nañ ko gis nañ Israël di def ay bombardement foofu ci côté Liban ci dëkk bi nga Sayda di ko defee ay drone yoo xamante ni amuñu ki nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci wàllu renseignement maanaam wàllu gëstu ci wàllu armée mu nekkoon ku fa nekkoon ñu koy Amos Bidlin ma ngay wax ci li nga xam ne moo nar dal ci askanu Israël nee na société Israël bi maanaam askan bi dinañu xam ne fi leen nata ñaaw di yóbbu musiba dëgg-dëgg la ndax xeex bi dootu yemati Gaza waaye dina tasaaroo ñu jàmmaloo ay groupe yu baree bari te loolu fa muy mujj ak Israël mooy dugal ko ci jafe-jafe yu lim rawatina ci wàllu doxalin Netanyaahu ma ngay jëfandikoo mu ne stratégie boo xamante ni dafa ko lu màbbal Israël démb nemmeeku nañu waa Israël song benn kër bombardé ko foofu ci mantiqatu dabaaru Cheikh Nasir nday jooru penku dëkk bi nga Khan Younis Khan Younis Russie Russie nee na ci kanam tuuti ay avion am dootuñu tiimati jawwu Palestine bi maanaam fa Israël nekkee dina ko tàmbale ki le 6 Russie moom nag jàpp leen ne jël na arme bu ama am doole ci jëflante moom ak Iran ci ay xeetu missile teg ko ci loxo Hezbollah démb bombardé na béréb boo xam ne waa Israël ñoo fa nekkoon muy seen benn caserne ñu koy xamal direction sept cent soixante neuf ci Croya Shomona ak ay missiles yoo xam ne missiles yooyu tudd Katyusha yu dëgër a dëgër yoo xam ne bombardé na ko foofu ngir fayu ñaawteef yi nga xam ne moom la Israël nekk di ko def foofee li ñu tuddee marée humaine maanaam ay millions yu millions yi doomi aadama démb ñoo génn daal di wesaaroo ci mbedd yemen yi di laaj ne joxante loxo dem jeexal Israël ci kaw suuf loolu moom mooy seen yitte nga gis si beneen vidéo li nga xam mooy waa Kataibul Qassam di fësal yenn jaloor yoo xam ne def nañ ko ci kaw yahut yi kuréel gi yor wàllu commerce ci géej gi muy waa Angleterre jot nañ ne démb bombardé nañ seen benn gaal boo xam ne sore woon na ci géej gi ñeent fukki kilomètre ak juróom ci ndeyjooru fi ñuy tuddee Maxa ci Yemen président militaire bu njëkk waaw ngeen jégal ma boobu déet waaw kay waaw kon boobu mooy xibaar bi mooy waa Yemen ñoo bombardé ci benn gaal boo xam ne toll na ci biir géej gi ñeent fukki kilomètre ak juróom bu anglais ministre bi yor wàllu sécurité bu njëkkoon muy euh, muy maanaam yor wàllu sécurité kaaraange gi ci Israël ngeen gën ko xam ci benn affaire ma ngay wax ne nañ gën a xañ ñi ñëw di seet ci seeni prisonniers ci Palestine maanaam kon nañ gën a andi ay xat-xat ci saa su ne comme ni ko baaxoo di defee bu leen fàtte wax na ne lu toll ak ñaari millions yi Palestine mënees na leen gaw donte dañuy faatu ngir mën koo def xoqatal ci xamaas ñu génne ñi ñu jàppal donte ñoom ñëpp dañuy faatu ba jeextal mu nekk wax joo xam ne kenn mësu ko ñaawlu wax joo xam ne nangu nañ ne rayal nañ leen benn officier bu bokkoon ci liw aw naaxil euh, kooku ñu ngi ko rey depuis alxames lañ ko jam waaye fi mu toll ni méttitu jam-jam ñoo dem ba daal di koy faat teewul ñoom yahut yi song nañu ay gox yu mel ni Rafa daal di fay bombardé waat yahut yi ba léegi ñu ngi songaat sowu dëkk bi ñu wax Baytulaahiya daal di fay defar ay bombardement niki noonu safara soo xam ne tàkkee na ci ay hélicoptère jëm ci dëkk yu mel ni baldatu Qaraara ci càmmoñu dëkk bi nga xam ne yahut yi fa jaar ñeent ñu ñàkk seen bakken ñoo xam ne yahut yi foofu ci sowu naasiraat ak ñaar ñu ñàkk seen bakken ci mu xayimu magaas yi donc kon yëf yam ngay gën a kii waaye boo demee ci journal bi ñu wax ayit si nga la nee na daanaka ka ñemeetul ak gaare sa wota ci buntu kër foofee ci Tel Aviv fat nañ seen oto yëpp fat nañ lépp lu ñu am li muy tekki mooy euh, république Israël bi ndëgam nekk na république waaye dëkkub Israël ña ngay jël mbiri ci solo su mat sëkk ci mën a waaj li nga xam ne moo leen di fekk si mbokk yi loolu mooy li gën a sës ci xibaar yi kii nga xam ne xew na ci diggante Palestine incha allah jërëjëf salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu